ne xel munu ko nango ndax Sitor Ndour mi nga xam ne moom la ñu lu jëm ci wàllum viol jël ko ko ci kasu bi jooje ñoo ngi bàyyi Ousmane Sonko mu nekk ci mbedd mi di dem librement ba pare di song li nga xam ne mooy institution yi rawatina muy song armée te kenn waxu ko dala loolee normalu la Farba Ngom jël kàddu ge nee na nag Ousmane ngi wax ne candidat la 2024 te xamul nag wàllum yoon lan la ñuy jël ni dogal ci lu moo xam ne dina gàllankoor Ousmane Sonko yéene kaay na en tout cas la Tribune ñu lay liggéey ci influence Youssou Ndour yéen a gi di Rewmi Quotidien di jaaji moo ni gisee yéen a gi di Les Échos nee na Macky dajee na ak député yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar mboolem député yi nga ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar nee nañu Macky Sall yaa yor su cëgul guya nu la neex yi nga xam ne moo a kaay gi di Walf bi moo tëjoo ndax xamul dañu koy jiital ci Assemblée nationale wala dañu koy def premier ministre njiitu réew mi di président Macky ci ndaje mi nga xam ne doon na ko amal ak député yi nee na duutu nangooti maanaam ministre yi ak directeurs généraux yi di yaacaara la a kaay gi di la nee na fan yi nga xam ne moom la ñu génn déggoon ngeen coalition Yewwi Askan Wi ne ñoom dañuy taxawal ay groupe parlementaire yu bari waaye nag bu ko waa Benno Bokk Yaakaar defee maanaam bu mu leen bett ci la ñu jëm yéenekaay gi di la mandat nee na Toussaint Manga bàyyi na PDS yéenekaay gi di Source A nee na délégation député PDS ñoo demoon ca Touba Seydi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou wax nañu ak moom ci lu jëm ci mbiri Karim Wade nee na ñu ko Karim Wade candidat la ci élection présidentielle 2024 waaye tamit Serigne Mountakha jaajëfal na bu baax ko na Abdoulaye Wade lu ne def na ko ci yoonu Mouride murit dëgg la te loolee maanaam du lu ñuy fàtte ba tey ci biir journal bi de la Tribune na ñi nga xam ne ñooy waa PDS démb ci Touba fàttali nañ Serigne Mountakha protocole Massalikul Jinaan bi li Macky Sall waxoon na ci dellusiwaatu Karim Wade sans condition ay yéenekaay gi di Vox Populi nee na amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall loolee njombe la ci réew mi loolee lu garaaw la rawatina ci ëllëgu réew mi li gën a yomb mooy ñu modifier code électoral bi suñu ko defee Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall dinañu mën a bokk sëriñ bi boobaa dana mën a bokk waaye nag am na séeli na loolee giraawali la yéen kaay gi délibération nee na jamono ji njaw ma ngi wéy di desu xamit ci expresso ndax direction générale ba ginnaaw fan yi ñu génn bi ñu licencié liggéeykat yu bare bare bare ñu ne déeta waaye am ñu doon takk ay sagar yu xonq di wane seen naqara lu toll si juróom fukki nit yu takkoon ay sagar yu xonq ñoom tim licencié nañ leen dàq nañu leen yéen kaay gi di évidence nee na sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadra mi nga xam ne mooy porte-parole xalif général des mourides jiite comité d'organisation màggalu gi démb janoon yi wax na ci Touba gi nga xam ne foo xool sa bët ci am ndox nga koy gis maanaam dëkk baa ngi fees dell kom ndox Serigne Bass Abdou Khadre nee na nag loolee ko lu war la wax nga xam ne ñoo doon yi nga xam ne moom la ñu génn di yokku njëg yi wax na ci yi nga xam ne xalifa bi def na ko ci Touba waaye tamit wax na ci màggal gi ak ñi nga xam ne ñooy màggal si dugg ci jumaa ji maanaam di def la nga xam ne moo leen fi indi yéen kaay gi di Les Échos na Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre su waree nag jaajëfal nguur gi dina leen jaajëfal waaye nag su waree waree dal ci seen kaw dina dal seen kaw bu leen waree jubbanti tamit loole maanaam dina ko def xaarul ko ko si ŋàññi xaarul ko ko si neexal yéen kaay gi di alerte nee na xam ngeen ne ba léegi bëri nay kër yoo xam ne ñoo ngi ci biir ndox mi yéen kaay gi di la turbine xëy di ko dëggal nee na ca Kër Masara ca Rufisque si Kambaaw jamono ji askan wa xam ne ñoo fay yeewoo ay jafe-jafe yu métte métti la ñuy am na kenn koo xam ne mbënd mi tax na mu ñàkk bakkanam ca diwaanu Saint-Louis waaye nag askan wi yeewoo Touba quartier Ndamato Madiana Daaru Marnana askan woo fa nekk jamono ji ñoom tim nañ ba maara di tale maanaam seen quartier yi moo fees dell kum ndox te nag màggalug Tuubaa gi léegi tey mu agsi yéene kaay gi réew mi quotidien xëy génn ñu réewum Sénégal yóbbu ñu ca réewum Guinée Bissau nee na am na ñaari gaalu Sénégal yoo xam ne dañu koo jàppuus ci biir ndox mi yéene kaay gi di la Soleil nee na Ismaïla Sarr jóge na Watford dem na Aston Villa stade yéene kaay ak xëy di ko dëggal yéene kaay gi di la Ziko nee na CNG def nañu ñu 2021 ne ñooy waa CNG